parce que bu ko deful euh, waa boor bee mën nañ ko jàppee ni benn fuite de responsabilité la ñuy jël ko comme outil de politique jàpp ni dafa amul programme dafa amul projet dafa amul programme <laughs> mën nañ ko jàppee noonu ñoom ah euh, base la bi. Uh-huh. ginnaaw bi nga xamante ne lettre bi euh, président daal di jox euh, euh, ñi nga xamante ne ni moom mooy le président de l'Assemblée nationale. Uh-huh. Ah, jëm ci wàllu lii di anam gi nga ko war a doxalee mooy déclaration politique général bi. Uh-huh. donc jàpp nañ le 13 septembre la war a am. ci hémicycle ba finalement. waaw moo tax ma wax la loolu parce que tey jii bu fekkee ni ñoom du suba dañu tas assemblée bi tey ci ci guddi gi. waa boor bële mën nañ ko politiquer. Mhm. parce que ñoom depuis boobu ba léegi ñu ngi wax naan euh, projet bi projet bi projet bi projet bi ñi yoruñu dara ñi yoruñu dara donc mën nañ jàpp ci loolu continuer bës continuer di bës ci bouton boobu daal di ñuy yoruñu dara lañ doon wax yëpp du dëgg waaw euh, buñ ko tasee tey buñ ko tasul tey so uh, Diomaye mën na leen a bàyyi la président mën na leen a bàyyi ba suba ba premier ministre def uh, def uh, déclaration bi ba pare ñu koy doo ko tas mhm. mais su boobaa day mel ni sénégalais yi lay waxal à travers ñoom à travers ñoom mais ñoom taxuñu muy wax parce ñoom dañuy dem mais pour bañ leen a pour bañ leen a may occasion bu ñu taxaw pour politiser ko mhm. mu def déclaration bi après doo ko tas d'accord loolu yëpp ngi ci biir quoi yéen ñi may seetaana ah, jërëjëf maa ngi ànd ak jëwriñ Ndiassé Saa Wolof Serigne Niang war ñoo dab waaye après bii tamit ah mhm. euh, Mamadou Lamine Dianté dinañu dinañu fekk si Abdoulaye Mbow ak ki nga xamante ne nii moom mooy siré si ngir waxtaan wu gën a yaatu mhm. donc bii avant goût bi la moo tax avant goût bi dama leen di permettre yéen ñi may seetaana ah, mhm. avec la complicité bien sûr de la régie ñoom itam mën nañ participer ci émission bi ci bu ñu wootee ci euh, plus 221 77 717 37 87 donc pour ngeen joxe seen xalaat avant li nga xamante ne nii moom mooy le président di wax donc ma may ci quelques minutes rek yoo xamante ne ni xëy na mën naa ko ubbi tuuti antenne bi le temps Ah, jëwriñ Ndiassé ak ki nga xamante ne moom mooy Saawolof benn dix minutes la boo xamante ne nii donc fas yéene nañ leen ko ubbil mais avant le président doon wax gis nañu ne te sànq itam courant ci Ndakaaru ah, daf fi coupé woon donc euh, waa Sénélec déjà du côté de l'opposition on a vu beaucoup de réactions j'ai vu la réaction de Bougane Gueye Dany j'ai vu la réaction de Madiambal Diagne je sais pas si c'est s'il est opposant ou pas mais en tout cas <laughs> c'est un lanceur mm-hmm. moom gis naa koy tamit mu def ay kii xam naa dama koy liiral euh, ngeen ngeen ngeen liyal ma ko su ko defee saa wolof mun a ñëw Moustapha Sylla de la diaspora maa ngi leen nuyu baax baax Fatou Kébé également ah, yéen ñëpp maa ngi leen di ziyaara ngeen may ma 30 le temps mu nuyu gars yi yi ñuy yi parce que ñoom tamit ci émission bi lañu bokk bambasaar Sarr depuis Canada nuyu naa la bu baax baax ah euh, Pape Djibril Ba nee naa la Fatoumata Marega ñu ngi lay nuyu courant bi fi mu toll tout est ok j'espère bien waa alhamdulilah courant bi ñëwaat na ah, ci yenn ci ay zone waaye daanaka Ndakaaru yëpp parce qu'on a Euh, communiqué venant de la ci waa Sénélec gis nañu tamit ñëpp ñu ciy wax mais euh, bëgg Bamba maa ngi lay ziar Germain Laprida ziar naa la Boubacar Babacar Mbuub Pape Gaye gay ziar naa la itam maa ngi gis seen message yi di leen wax ne da ngeen di boole ceeg commenter ngeen partager itam am na ku nekk ci ligne bi déjà Ismaïla soo ma ko permettre ma jël ko le temps saa wolof ñëw toog moom ak euh, Abdoulaye Mbog ñoom ñëpp en tout cas asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ku baax na nga def ñoo ngi baax. Ah, waaw jëwriñ mu ngi lay teewlu. ziare Saa Wolof. Saa Wolof mu ngi lay nuyu itam. waaw ah, ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax. di la fay bu baax ji maa ngi woote Moscou quoi. Moscou waaw foofu de ca la. waaw Russie waaw. waaw waaw yow rek la ñuy teewlu yaa ngi en direct Sénégal 7. waaw ah, émission bi am na solo quoi duñ jug moom si di leen bàyyi xel quoi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw ah, ñu ngi leen di seetaan yàlla na gën a jëm kanam quoi fi ngeen teg seen tànk foofu la rek adduna moom nit na ngay dox si dëgg. dëgg la. dëgg boo waxee nit ñi dégg ko quoi. dëgg la dëgg la waaw ah, ñun ñu see. waaw. Euh, ñu ngi lay déglu de waaye réseau bi de daa mel ni xam naa xaw ma ci ñun la xaw ma ci waa Moscou. kii nag vraiment. waaw. dañoo bëgg leneen lu bees quoi. waaw fi mu ne nii moom nañ ko tas rek. Mhm. Sénégal yi nekkaat si beneen tournure bu bees quoi loolu lañ jiite woo quoi. d' accord am na solo jërëjëf sax du CHR du midi à 14h quoi. loolu lañ soxla quoi. Sénégal yi dañoo maar quoi beneen tournure lañ bëgg quoi. d' accord. waaw loolu lañ si sàkk quoi. am na solo. baax na jërëjëf jaajëf kontaan nañ baax a baax jërëjëf nuyul ñu waa Russie yëpp ah ñu ngi lay jaajëfal di la jox sa wàccuwaay jaajëf. képp képp kuy sénégalais nekk ca Moscou rek ñu ngi lay tamit fu ngeen mën di nekk rek xam leen ne ñu ngi leen di bàyyi xel baax a baax édition spéciale boo xam te ni avant goût ngir ngeen jot euh, discours bi waaye wax naa ko Abdoulaye Mbow Dianté ak Siré Sy dañuy rejoindre incha allah ci kanam tuuti ñu ànd ak Saawolof ak kii di ah, jëwriñ Ndiassé Saawolof bu fekkee noppi nga ah, ñu continuer ba tey ak euh, waxtaan bi waaye en attendant yéen ñu ñuy suivre ah, vous zone yu bëri donc am ñoo xam déjà ñu ngi ñu ngi ciy wax ci discours bi ne xanaa nag dina ci wax ah, euh, te moo ne euh, am na réew yu coupé ay 48 heures sans pour autant ñu ñu ñu wax ci mais déjà d'emblée loo noo jàngatee itam ki nga xamante ni mooy réaction wu Bougane Gueye Dany réaction wu Madiambal Diagne jëm ci wàll wi parce que nee nañu la ñu teg ci table bi comme ay ah, euh, nu mu tudd sax la ñu teg ci table bi comme li nga xamante ne ni moom mooy argument teguwul. a ah, ne xam nga xam nga Senelec dafa génn. Mhm. def benn benn communiqué mhm. di ci xamle li waral ah jafe bi am jëm ci wàllu ci wàllu ci wàllu courant bi. Mhm. waaye ñoom li ñu wax mooy dañoo jàpp ne li ñu wax ne courant bi looloo tax mu mu mu coupé tegul benn yoon. na kilifa gi bu génnee tey mu wax ci. ñoom la lañ jàpp ne moom ñoom dañoo am information ci leneen moo ko coupé. lu bokk ah, ak li Senelec xam nga. sinon mën naa la liiral li ñu wax rek. Ah, pour nga gën koo xam. Mhm. alors euh, ki nga xamante ne nii moom mooy euh, Bougane Gueye Dany ah ci gàttal ma ma ma toftal leen ko rek comme ça yéen ñëpp ñu ngi seetaan ngeen ci am euh, moom cent sur les 1780 milliwatts d'électricité du pays. Mhm. comment cette production peut-elle perturber la distribution de l'électricité partout au Sénégal entre donc point d'interrogation mu ne entre juillet et octobre le Sénégal ne dépasse jamais 1100 milliwatts de consommation. bon teg na ci nag benn mot xaw ma ndax c'est c'est mais euh, wax lu dul dëgg nee na baaxul Bougane Gueye Dany signé. non xam nga courant mënul couper lu dul tey yaakaar naa ba 15 heures wala wala 14 heures 14 heures courant bi ngi am wala 13 heures nangam. Mhm. diggante bi on est à 19 heures. Mhm. boo doon xool diggante bi loo xam ne matul kii buñ ne la côté technique la wax dëgg yàllam loo mën a jàpp la. su fekkoon dafa tegale ay fan di coupé di dem di ñëw daa bu ñu waxee di mën naa wax ñu kii mais Bougane quelqu'un la koo xam ne du xaar trop loolu nag boo koy du xaar mbir yi am de ko njëkk a wax wala maa ko njëkk a dénoncé xam nga loolu li ci jig ma jàmbal jigu ko ci. Mhm. day mujj late day mujju soof ci bëti askan wi. Mhm. parce que lu ñor nga wax lu ñor lu ñorut sax nga wax laay wax. parce que wax dëgg yàlla kuy naan ngelaw boo gisee ndox du mat a wax. Mhm. mais lu ñorut lay wax. Euh, démb noonu la def xama barki démb li nga xam ne mi ngi xew jéye ji ca Mbuur mu mm. commencé wax ci li muy wax ne ñi lii lañ tal nangam nangam ci benn côté yooyu nga xëy même pas jant bi avant jant bi so président accourté ay voyage am dem taxaw léegi looy wax waa koñ ba après mm. euh, affaire de compte da ngay nit ñi dañ naan da nga soof quoi loolu mooy wax ci mm-hmm. xam nga bu bëggee opposé nii du dem man nag man bu ma sañoon wax dëgg yàlla am opposant bu mel ni Bougane laay laay laay am parce que yow chaque fois dalay lay wan sax noo war a noo noo war a def. Hmm. par cuuneem. Hmm. xam nga manque d'élégance si ni muy opposé bëgg a wax ne maa ko wax pour kii gis nga Amadou Ba man maa ngi commencé di xaw a am ne yaakaar tuuti ne dina am lu mu téye xam nga lu tax. lu tax grâce ak ay cuune xalaas ak bugaan liggéey ak yu demee noonu mooy gaaw a wax ak yooyu su ne jaragu ko. sànq maa ngi liir maa ngi la dégg yow ak sëñ Saliou Guèye sax ma dem liir publication moo ma yóbbu ma dem liir publication Pape Malick mais wax dëgg yàlla dama bind ne kii de naw naa ko ci lii naw naa ko ndax euh, publication bi mu def di xaar nag ba xam dana ma gën a wan lu tax ma wéy di ko naw am mhm. que dafa am loo xam ne bu fa àdduna toll ne mhm. da ngay xaw a bu fekkee opposant nga da ngay solidarité tuuti. ak ñi nga xam ne tey ñoom ñoo jiite gis nga dafa am lu Amérique jàngale. Euh, ci le onze démb nga gis débat bu war a am entre euh, Kamala Harris ak euh, Donald Trump. Mm-hmm. malgré loolu malgré débat boobu war a am dangay gis ne lii l'essentiel nga xam ne dafa soxal réew mi yëpp mu ngi mel ni jéyee jéyee am démb ci Mbuur wax dëgg yàlla am loolu yëpp opposition comme pouvoir dañoo daje même ancien maire yu New York. kenn ku ma boole leen ci ci waxtaan bi rek mm. salaamaaleykum ku baax ah, dafa mel ni dem na saa wolof mën nga yeggale. voilà mais bu dee ma jàmbal nee na ces explications mooy li Sénélec joxe nee na ces explications ne tiennent pas la route. un nee na l'OMVS ne fournit que 7 pour cent dans la production du Sénégal Le Mali a d'ailleurs fait main basse sur les quotas du Sénégal de la Mauritanie pour régler ses de la consommation au Sénégal sont de 1100 MW sur une capacité de production installée de 100 1789 MW. Donc le Sénégal dispose toujours d'une réserve froide de 700 MW. moom loolu la wax xaama jël kii avant ma leen di bàyyi ngeen mi na Abdoulaye salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah na bu baax a baax Sénégal seet ah. la. waaw Sénégal la kan ak foo ñuy woowee. man laa bisimilah rek la ñuy teewlu. ñëpp. di la si liggéey bi di la fay bu baax. di nuyu sama papa Diori Ndiassé moom toog. waaw mu ngi lay fay bu baax moom tey. di nuyu sama grand Saawolof. Saawolof mu ngi lay ziyaara moom tey. di nit ku baax sax. te bu ñuy wax dëgg rek mooy tax ñuy wax. lu gën si ak seen askan rek la ñuy taxaw. Mhm. bon man lu ma bëggoon wax par rapport à l' assemblée nationale. bisimilah bisimilah allez sama gis-gis bu gàtt man pour man président bu ba yónnee courrier assemblée nationale pour ne leen DPG bi le treize lay doon. Mhm.